rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi rabbi ya ahmadu xalaa muhammadi xali xayru salawaati samadi baarik li allahumma fi xayaati wajal waadi wa bismillahi irrahmani irrahim wa salla allahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiya allahu an alcheikh alxadimi qaada allahu maxtaara lahu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mbokk yi seen ndongal daara Alioune Badara Ndiaye fii ci tuuba almaxruus ci tuuba almaxruusa ci xasiida yim baaxoo ànd ak yéen dellusi na di leen indil beneen ci xasiiday sëriñ tuuba yi ci kàttanul yàlla saa borom subhaanahu wa taala ak dimbalam muy xasiida goo xam ne ñoo ngi jug koor weeru koor ci deux mille defe naa daanaka rekk li ñu dugg ci koor gi ñaari fan walla ñett te xasiida gi di wax ci koor di dëfal ñi nga xam ne ay way woor lañu ngir xam nañ ne koor dafa metti lool ci wàllu xiif wàllu mar wàllu terala lépp luy bànneex xasida gi sëriñ Tuubaa def ko ngir defal leen ngir wax leen di leen dëgg la lu metti la waaye la leen ci suñ borom di fayee ëpp na ko ëpp na ko jar nga xam ne bu ñu jàngalee li nekk ci xasida gi mën naa am da nga giif da wax ne koor day metti na waaye lii ñu ca wax lépp ndekam moo ca ne kon dinaa ca góorgóorlu moo tax ñu fas yéene ci ànd ak yéen insha allah xasida gi nag bokk na ci xasida yi sëriñ bi mujj a def ndax 1913 ci ati tubaab yi la ko def te ku ne xam ne ne sëriñ bi mi ngi fi bàyyi ko ci zahir 1927 kon 13 ak 27 sorewut yàlla dogal na sëñ bi nag moo tudd at mim ko def muy alchachine muy junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak benn muy 1331 ci gàddaay gu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah xasida gi fii la tàmbalee mu ne bismillahi rahmaani rahim bismillahi maa ngi tàmbalee ci tuuru yàlla ci taarif gi may taarif xasida gi arrahmaani yàlla mi borom yërmande ju matale ja arrahimi yàlla mi borom yërmande ja nga xam ne dana ko jagleel ka ko soob ëllëg yowmal xiyaam arrahman mooy turu yàlla bi nga xam ne yërmane ji mu yore ñépp la koy jox ba ci ñi koy mooy ko weddi arrahim nag ëllëg yowmal xiyaam da koy jagleel ña mu digaloon tere leen ñu góorgóorlu seen kem kàttan mu ne bashara bégal na allahu yàlla tabaaraka barkeel na wa taala kawe ñan la bégal zuwaara naasimi haadihi alqasida siyaarekatu siyaarekat yi nga xam ne ñooy ñëw di siyaare aji way xasida gi maanaam Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne dañ daa ñëw fa njaareem ak ci barab bu mën a doon di ko siyaare neena suñ boroom bégal na ñooñu wa ak ñu dul ñoom minal muminina ci way gëm yàlla yi wal muminaati ak way gëm yàlla yu jigéen yi maan ñoom ñépp ci lum leen bégalee fii chahri ramadan ci weeru koor xaama alsasin ci atum junni ak yetti téeméer ak fanweer ak benn nga xam ne suñ borom nee kon bégal na ñii ñëw di ma siyaaree ka siyaarewaat ndax la jëfandikoo mooy ku koy defa defaat nee na bégal na ci jullit ñépp ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi rawate na ci at mii di 1331 nga xam kon xasida gi da koo far tënkee loolu muy fii chahri ramadana alsasin mu jël bayt wu njëkk wi ne faaza allasina xaafasu ala siyaam chahrin bihi ugliqa baabun lil iyaam mu ne faaza texe na faasa am na la mu bëggoon faasa réussir na ñu ne ko kan la mu ne allazina ña nga xam ne xaafasu dañoo wattoonteeg dañoo sàmmoonteeg ala siyaami shahrin ci woor weer woo xam ne uxlixa tëjees na bihi ci sababu dikkug weer wi baabun buntu lil iyaam ñeel dox jëm ci jëf luy waral ak yeddaange wala dox jëm ci bàkkaar nee na ñi nga xam ne dañuy sàmmoonte di weer di woor weer wii muy weeru koor nga xam ne weer la woo xam ne yonent bi nee na bu dikkee dañuy tëj sawara yi ubbi buntu àjjana jéng seytaane nee na ñooñu day ñu texe lañ ñu am la bëgg lañ yaraw na dananu gis afdala futuur ngën gi ndogu fil xubóor ci bàmmeel ya wafil xiyaamati ëllëg ca taxawaay ba yowmal xiyaam danañ fa amit ay ngëneel minal muux nii yu bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji woomal ja di aji doy ja nga xam ne képp ko oomal moo la jox alkabir buur ba nga xam ne mooy buur bay aji mage neen fii ci àdduna ndogu liñ fiy ndogu nga xam ne bu dog jotee nga bég lool ndax mar wa nga maroon ak coono ba tàmbalee wàññi ko na déedéet loolu ca dëgg-dëgg sax du ndogu dëgg ndogu li leen yàlla waajal ndogu li leen yàlla waajal ña ngi koy jote ca seeni bàmmeel ndax foofa dafa nekk barab bu jafe bàmmeel barab bu lëndëm barab boo xam ne ndimbalal yàlla rek moo fay jariñ ab jaam moo tax Sëñ Tuubaa ne tallaahi laysa yanfa laysa yanfau saxsu xadaa inda xuluuli ramsihi xayrul maa ngi waat ne jaam bi dara du ko jariñ buñ ko dugalee ci bàmmeel lu dul am njub kon foofa lañ ko soxla nee na suñ jubaa nee na ndogu li gën ci ndog yi nag suñ borom mag leen koy joxe ca seeni bàmmeel waaye ëllëg buñ taxawee ci bis pénc ba suñ boroom dana leen jox ay xéewal yoo xam ne ñëpp dañ leen ciy ñee xéewal yoo xam ne ñëpp dañ leen ciy ñee yàlla moomee nag mooy nii nga xam ne mooy moom rek moo am lu ko doy te képp ku mu jox nga am loola doy mooy alkabir mooy buur bi nga xam ne mooy aji màgg ja shahida xaalixul wara li saaimin fi ramadaana bi ridaahul qaaimin sëriñ bi na shahida seede na kan moo seede xaalixul wara yàlla mi aji bind mbindeef yi ñan la seede jëm ci moom li saaimin way woor fi ramadaan ci weeru koor lu mu leen seedal biridaahu ci ngërëm ci làq ngërëmam alqaaimin ña di way taxaw guddi ya di ko dundal ci ay naafi nee na yàlla dig na ñi nga xam ne dañoo fonk weeru di ko sàmm di ko woor waaye di taxaw guddi ya ngir sàkku tuyaabay saa borom subhaanahu wa taala ñoom suñu borom dig na leen ne danañ am ngërëm kon ngërëmal yàlla lu jafe la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon ne man qaama ramadaana imaanan waxtisaaban xufira lahu ma taqaddama min bi képp koo xam ne weeru koor da cee taxaw dundal ci guddi gi sa kem kàttan te ngëm yàlla rek moo ko lal ak sàkku tuyaaba saa jéggal la say mboolem bakkaar ñenn ñi xam ne dañuy woor weeru koor ci di taxaw guddi ngir sàkku ngërëmal yàlla saa borom dig leen dana leen jox ngërëmam xibaatuhum seeni may ñoom gaa yooyi waafira aji lëw la aji gudd la te rëy indal ilaahi fa buur ba ñoom seeni may mayu rëy la ca yàlla man ko ko bañ a xam ci àdduna nag su ko defee téere yi nga xam ne nag mooy xasida yi da ciy bëri yoo xam ne yàq yee day bari lool su ko defee képp koo xam sab téere da nga cee gis da nga cee gis indallaahi rek nga xam ne indal ilaahi ndax boo defee indallaahi way wi day dëng ci wàllu arud kon xibaatuhum inda al waafira waaye boo nee xibaatuhum allahi waafira mën naa xaw a doy waar xibaatuhum seeni may waafira aji lawla te gudd inda fa boor ba naaloo am nañu almu almuna mébédia fii darajatil axira ci darajey ëllëg yobal xam darajey ma yàlla jox na leen cër yu rëy jox leen ay may yu rëy te bu ëllëgee yowmal xiyaam lañ doon mébét mooy daraja ju kawe wala laaxiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila yowmal xiyaam yu mag ya nekk nee na su boobaa daraja yooyu suñ borom dañ leen ko jox rudda tàggatees na wala delloos na rudda delloos na euh, azaabu naari mbugalum sawara jañ nañ ko li xayrihi mu jëm ci ñeneen ñu bokkut ak ñii may wax ñii nga xam dañoo sàmm koor di ko fonk ka dundal suñu boroom jox leen ay xéewal ñu dul ñoom nag suñu borom dàq leen jël sa mbugalum sawara jëmee ko ca ñoom rudda delloos asaabu naari mbugalum sawara li xayrihim jëmee ko ci ñi bokkut ak ñii fonk weeru koor bi xayri dirhamin ci lu dul dërëm walla diinaar du caaginu benn diinaar ñii daal amaluñ njariñ yàlla amaluñ njariñ weeru koor dunu dundal guddi ya dunu woor bëccëg ya duñ ca dépassé seen alal ñoom duñ am dara lu dul mbëggoolum sawara rek lañ leen di lañ leen di faye yàlla nañ ci yàlla yàlla nañ ci yàlla musal duñ am dara fa yàlla ndax yàlla da leen a jëralu dara rafaxahum yëkkati na leen arraafixu yàlla mi aji yëkkatee bi ramadaan ci weeru koor ñoom gaa yi di ko fonk nafaahum jariñ na leen annaafihu yàlla muy aji jariñ ja bi sarwaati ca julli ya xam nga weeru koor ñaar la séddale bu dee bëccëg yi da woor bu dee guddi ya nga di ko jullee ka naafila neena yàlla day yëkkati seeni biir way woor ñooñi ci bëccëg bi ci weeru koor guddi gi nga xam dañuy taxaw di naafila suñ borom defal leen ci ay njariñ te yàlla rek mooy mën a moo mën a jariñe madda tàllal na lahum ñeel leen euh, albaaxi yàlla miy aje des mu nan nufoosi mébéti bakkan ya la seen bakkan bëggoon suñ borom jox na leen ko suñ borom lañ bëggoon mooy koor ba ngoon jot nga sonn lool bëgg naan lu sedd bëgg a jëfandikoo yu fi njóobeen suñ borom daganal ko ci yow waaye nag bu ëllëgee yomal xam lañu bëgg foofu mooy dugg àjjana ak i xéewal suñu borom joxaat leen ko foofu albaaxi yàlla mi aji des mi nga xam ne dul aradina mooy borom suuf yi asabi ya di juróom ñaar watti baaxi ak déele yi mooy ak asamaan yi yàlla mi nga xam ne moomoom moom asamaaw yi juróom-ñaari asamaan moomoom juróom-ñaari suuf bu ëllëgee dana leen defal la seen bakkoon bëggoon te di ko mébét te fekk fii ci àjjana la ko fii ci àdduna la ko tàmbalee diyaafatul baaqi la dal jinaani tamxu ana asawmi bimtinaani sëriñ bi ba léegi di bégal ñi nga xam ne ñooy woor weeru koor di leen dëfal di leen xamal ne koor gi nuru na lu metti waaye ay bu ngeen xamoon la leen yàlla dencal ay bu ngeen xamoon la leen yàlla dencal kon dangeen ngeen yéene jamono jëpp nekk koor bu ngeen xamoon la leen yàlla dencal loolu njóobee ni mënuñu koo dégg waaye dañoo xamut li leen yàlla dencal rek nee na diyaafatul baax yi ganale ga nga xam ne yàlla dana ko ganale la dal jinaani fa àjjana ña nga xam ne ñooy woorkat yi diyaafatul baaqi ganalek yàlla mi aje des ja la dal ñi naa fa ajjana day tamxu dana effacé ana a sawmi coonay koor gi bimtinaan ànd aki xéewal bimtinaan ànd ak tëbb ay xéewal imtinaan mooy nga def lu rafet ba noppi ñu fay la lu gën a rafet loola sëriñ bi nee na ay bu ngeen xamoon ngan nga leen yàlla di waajal ca àjjana hmm? ndax àjjana dafa am àjjana joo xam ne ñii woor dong nga fay dem loolu ay loolu koor rek moo ko am loolu taxsiis la ci koor am na àjjana joo xam ne jaamu yàlla koo mën a def doo fa dem boo léegi dañuy woote ne ana ñi daan woor ñu ne ñu ngi nii ñu ne ñëw leen dugg bu ñu duggee ñu ubbuntu ba kenn du dugg noonu la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxe foofa am na nganale gu rëy ci ndaw yàlla ku mën a ganale ma ne ko yàlla ndaw ko mën a ganale nee na ganale gëm leen ni ganale foofa ci àjjana day coono bi ngeen amoon fii ci koor gi dana ko effacé ba mu set wécc ba noppi tëbb leen ay xéewal yoo xam ne xamu leen euh, nu muy tolloo ajural la si yoolub ka nga xam ne maa indahoo la nekk fa moom laa yen faru du jeex ajurun ab yool la boo xam ne kabirun yool bu rëy la maxtaraaxu boo xam ne du ko gaar mukk nafadu ak jeex nee na saa borom ku war a mën a ganale la ndax moom maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baaq ci alxuraan li nekk ci nit ñi mooy jeex waaye li nekk fa man du jeex nee na kooku nag ab yoolam yool bu rëy la boo xam ne du jeex moom it ku dul jeex jeexle bu lay defal teraanga teraanga teraanga ja du jeex moo tax man la si yoolub yàlla mi nga xam ne day maa indahu la nekk foofu laa yéen faru du jeex yàlla mi nga xam du jeex la ajurun kabirun yool bu mag la boo xam ne maa taraahu du ko gaar nafadu ak jeex du la fay ba mu yàgg mu jeex wala mu defal la ay teraanga wala mu gànnale la bañ na ngan gi fii la yem <laughs> day continuer rek moo tax àjjana moom day nekk àjjana day nekk buñ fa xasee ba dugg rek yàlla nañ fi yàlla duggal ñun ñëpp dañ fi nekk loo xam dañ fay béel xaalidiina fiihaa dañ fay sax abadan dañ fay sax ba faaw nee kon nag yàlla moom yi mooy jox tuyaaba ñi nga xam ne ñoo daa woor te moom du joxe mukk ba mu yàgg mu jeex nafu siyaami shahri njariñul woor weeru koor wi yekk fii fiikum dana leen fegal alaaray ni gàcc ak àdduna ak àllaaxira wan naaray ni ak sawaraw àdduna ak àllaaxira fiddaaray ni ci ñaari kër yi moo tax sax indi ko njariñul li nekk ci weeru koor dangeen ci amee muccug àdduna ak àllaaxira am ci texe àdduna ak àllaaxira njariñul woor weer wii sëñ Tuubaa nee na yekk fii kum dana leen fegal alaareyni ñaari gàcce yi alaareyni fit daareyni gàcce ak àdduna ak àllaaxira wan naareyni ak sawaru àdduna ak àllaaxira alhamdulillah abatumullaha jaamu ngeen yàlla alkarim yàlla mi aji tedd al akram ka gën tedd bi xayri shahrin ci ngën gi weer xad yaquudu woo xam ne dana womat alkarama teraanga ya neen yéen da yéen a ngi jaamu yàlla ci weer woo xam ne jaamu ci yàlla mu ëpp doole jaamu yàlla ci weer wu mu mën a doon muy weeru koor shahru ramadan ane ci lañ wàcce alquran wàcce ci laylatul xadar nga xam ne xayrun min alfi shahr moo ëpp jaamu yàlla ak junniy weer nga xam ne ëpp na juróom-ñetti fukki at nee yéen fi ngeen ko dàq moo baax ñëw ba ci weer wi gën ci weer yi ngeen fas yéene ci jaamu yàlla moo tax suñu borom dañ leen jox ay teraanga yoo xam ne yéen rek yéen a koy yéen a koy jagoo mu ne ilaa siwaakum wala boog nga ne tantahi da ngay jël tantahi nga jiite ko tantahi dana dana jublu a niiraano sawara ilaa siwaakum jëm ci ñu bokkut ak yéen yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba kasaa niki noonu alxusraanu pertement ba nee na yéen xéewal ngeen am sawara akok perte ak musiba ak tooxi doona yee am ëllëg yowmal xiyaam kum mën a jëm day du jëm ci yéen ñi nga xam ne yéen a daa fonk di jaamu yàlla ak ak di woor weeru koor nee na yéen moom bu ëllëgee da ngeen ci da ngeen ci mucc ndax waxoon na ko fee léegi yegg fii ku mun a aaree ni wan naaree ni fi nii nee na kon tantahi dana dana jublu an niiraanu sawara ilaa siwaakum jëm ci ñu dul yéen yomal xiyaamat bis pénc ba kasaa nekk no alxosraanu pertaange dem ba yomal xiyaam doo texe di perte daal nee na loolu xuma ku muy dal waaye du leen dal yéen ñi nga xam ne yenee woorkat yi yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te may no nuy woor koor gi ci ni ko saa borom bëgg subhaanahu wa taala te nangul no malaktumun nufuusa fi nnahaari yanxuu li gayrikum zawunti haari foofu mooy lañu war a tàmbalee tey sëriñ bi nee na malaktum moom ngeen an nufuusa bakkan ya fi ci bëccëg bi yéen ñiy woor weeru koor fexe ngeen ba tëj seen bakkan ci bëccëgu weeru koor du ngeen lekk du ngeen naan du ngeen bànneexu lépp lu neex ngeen xañ ko seen bopp ngir jëmm yàlla yan xoo dana jublu zawantihaari warom lor yi zawantihaari warom lor yi boroom tooñaange yi gëddekat yi li xayrikum jëm ci ñu bokkut ak yéen li leen ci yàlla fay mooy yàlla dana leen musal ci képp koo xam ne borom ak la képp ko iñaan képp koo xam ne day gëddaateeka toroxalaate suñ borom dana leen ci musal ci lan ndax bëccëg bépp da ngeen a téye seen bopp ngir jëmmi yàlla koor moom day loo xam ne ak ragal yàlla da ciy feeñ moo tax alxuraan ne la'allakum tattaquun ndax ki woor yàlla rek a tax muy woor woor mu mënoo coo ngistal ndax bu la neexoon mën ngaa nëbbatu lekk ba suur te kenn du ko xam kon boo waree rek daa fekk na yàllaa tax ne suñ borom kon bokk na ci teraange yi mu leen defal mooy dana leen musal ci boroom lor yi abwaabu jannaati naimi bunti ajana yi yi nga xam ne ay àjjanay xéewal la futixat ubbees na ko lu tax ñu ubbi ko li soo imiina ngir woorkat yi wal jamiu te bunt yépp kat fi mu toll nii ñu nekk ci koor gi nii in fataxat ma nga ne ma ne sàll in fataxat ma nga ne ma nga ne yàmbalang <laughs> in fataxat ubbiku na <laughs> eh, sëriñ bi nee na eh, bunti àjjana yëpp suñ borom waajal na ko ubbi ko ngir di xaar war way woor ñi ñu faatu ba ñu dugal leen ca te bunt yëpp dafa ubbeeku ci jamonoy koor loolu xadis la yonent bi nee na bu wóoru ko wóoru koor dugg see dañuy ubbi yi tëj bunti sawara yi yëng seytaane yi xadis boobu abi xureyrata radiallahu moo ko nettali loolu la sëñ bi di waxaat fii rek mu ne bunti ajjana yëpp nee na ŋàll ubbeeku na ndax lan ngir woy woor yi ak weer wu tedd wi yëpp ubbeeku na incha allah ku ci faatu rek ñu dugal la fa moo xam daa faatoo ci koor gi moo xam daa woor ba yàlla dogal bi su faatoom jot mu faatu ñu ubbil ko bunti àjjana mu ŋàppeeku mu kenn du ko téye lakum am ngeen yéen yéen ñi way woor yi la dal futuur yi ca jamono yi ndogu ga jamono ji ngi waxee na dog jot na wa liqaa yi ak jamono ji ngeen dajek seen boroom yaa xaw mi yéen nit ñi yéen workat yi am ngeen lan forxataane ñaari mbégte biir tiqaa yi ci sababu euh, yëkkati jikko war a ci sababu ragal yàlla nee na yéen ñi woroon bu ngeen dajeeg yàlla am ngeen fa mbégte bu dog jotee am ngeen mbégte loolu ba tey beneen xadis la sëñ bi ay xadis rek lay wax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne li saimi forxataani ki wooroon am na ñaari mbégte ñu ne ko ban ban mu ne bu dog jotee ba léegi lañ ko tere woon lépp dagan ci moom day bég mën a naan ndox mën a lekk coono bi daal di wàññeeku waaye bu dajeeg boroomam suñu borom fay ko mu amaat foofu am bég moom la sëñ bi wax fii ni lëkkum am ngeen la dal fotóor yi ca dogga wali xaay ak dajeeg seen borom yaa xaw ma yéen woorkat yi forxataani ñaari mbégte birtiqaa yi ànd kook yëkkati kook daraja kon kiwoor woor bu dog jotee dana bég ngir coono yi dana wàññeeku ak mettit wi waaye bu dajee ak boroomam nag foofa la ndogulu mag la nekk dégg nga la waxoon nee na suñ borom mi ngi leen di xaar ay ndogu ca seen bàmmeel mu ne sa taalamuuna xal seet na ba da ngeen xam da ngeen xam anna rabbakum naka seen borom de karim aji tedd la bis dana ñëw ngeen xam ne yàlla nag mooy dëgg dëgg tedd nga ci moom la fekk baax ndax lan ndax lam leen di defal ci ngeen koy xamee. kon da leen di tëkku ci ay xéewal <laughs> tëkku ci ay xéewal da ngeen di mën a woor rek waaye billaay da xam ne yàlla mën a fay da ngeen xam tamit wa anna indahu ak nekk na fa yàlla ujuran ay yool yoo xam ne laa tërim du jeex du dog mukk da ngeen xam tamit ne yàlla mën a fay bu leen di fay fay ga du am fu mu fu mu yem moo tax koor gi lu metti metti rek muñ leen shakartum sant ngeen allah yàlla ala shahri siyaam ci weeru koor wii sa tadd xuloona da ngeen dugg jannatan àjjana doona iyaam ci lu amut benn jafe-jafe yéen kat yéen a ngi sant yàlla nu ngeen di sant yàlla mooy lim leen sant ngeen di ko def waxoon naa ne ashukru mooy i'malu ala daawuda shukra sukuru mooy da ngay sant ci jëf mooy yàlla bu ngeen xoolee xéewal yi mu leen defal yépp tax ba mu ne leen woor leen weeru lëmm ngeen nangu ko loolu sant yàlla la sant googee nag yàlla dañ leen ci fay ajjana joo xam ne benn jafe-jafe dugg ajjana bi xayri xisaabin wala xiqaabin du ngeen am mbugal du ngeen kenn du leen réglé incha allah daa mel ne bayit yi foofu lay am mu yokk ci lii ne bi haasihil ci bayit dafa mel daa bëgg wax da ngeen sant ngeen yàlla yàlla dana leen fayee ajjana joo xam ne leeral naa ne ko ci bayit yii ma leen wax bi haasihil abyaati ci bayit wa axrajaha te mu génne ko ilayhim jëm ca ñoom woorkat ya li tàkkoona ngir mu nekk euh, futuurahum seenu ndogu yawmal iidi ci bisub feet ba wallaahu yàlla nag xalaa ma naqulu lii ma wax wakiilun aji seede la ko waaye ku may wéeru ci moom la lii ma wax ku ko weddeet yàlla xam na ne moom li ma wax am na mooy suñ borom dañ leen dugal àjjana te wax naa leen ko jox naa leen information bi ci bayit yi ma leen wax incha allah te bayit yi kat euh, maa ngi ko génnee jëmale ko ci woorkat yi ngir saa yu dog jotee rek waaye saa yu koor gi jeexee ba ñuy feetu ñu xam ne li ñuy feetu mat nag feet te mooy def jaamu yàlla ba jaamu yàlla nga jeex yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp fii la xasida gi yam ngeen ci doon ànd ak seen mbokk Alioune Badara Ndiaye fii ci Touba incha allah yàlla na suñu borom nangu ko. képp ku ci jot rek nga xam ne euh, jaamu bu yàlla bu doon jéem a liggéeyal sëriñ Tuubaa la lu ci jub ci yàlla la nu ngi koy sant lu ci dëng ci gàtt xam-xam ak bëgg rek euh, def te xam naa man ngi xaw a jafe ñu ñaanal ko suñu borom jéggal ko ko sëriñ bi jéggal ko ko waroom xam-xam bi jéggal ko ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi ya ahmadu ala muhammadi